salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di jàll nuyoo beeg siyaare bi ci jaarale ko Sëriñ Tuubaa Séex Mamadu Muntaxa di ko ñaan yàlla suñu borom yàgg ko fi te ko di leen nuyu ci mu Muxaddamatul Xidma bu jumaay Tuubaa ci bu sa imam kilifa yi ngànk daayira bi yëpp ak membre yëpp di nuyu mboolem ñi nga xam ni seetaan seen bii di MK TV seen bi nga xam ne moo nekk fii ci Grande Mosquée bu Tuubaa nga xam lépp laaj jumaa ji soo ko toppee la fay xew da ko xam looloo tax ñëw fii tey ci infirmière bi nga xam ne mu ngi nekk ci biir jumaa ji ci daayira Muxaddamatul Xidma taxawal ko fi ñu taxawal ko fi nag ngir ay anam yoo xam ne moo tax daayira baaxoo waxtu wu lépp lu yëg ne bu ko defee rek dana yombalal nit ñi ñu ñëw siyaare yi jaamu yàlla niñ ko bëggee ba ñibbiwaat du ñu am benn jafe-jafe ci jumaa ji ak penc mi looloo waral ñu taxawal infirmière bi loo tax nag ci waajtaayu màggal gi daayira bi ak infirmerie bi ñu ngi bokk di waajal liggéey bu baax a baax waajal googee nag bokk na ca ñu uh, soññi nit ñi nga xam ne ñu war a ñëw ak buñ ñëwee ni war a ñëwee bokk na ci ni ñu war a ñëwee mooy tàmbalee ci képp ku waaj di ñëw ci yàlla dogal la nga doon kuy jël ay garab nga fexe bul fàtte say garab ci kër ga boo ñëwee nga indaale say garab beneen ba tamit boo ñëwee nga moytu naaj wi bu baax a baax ndax jamono tàngoor la ñu nekk nga moytu tamit fépp foo xamante ne day am raj raj loo moytu tamit euh, xat-xatloo bu bare bare ak boo xante ba ne ma tamit nga fexe ba foo toll di naan ndox yu baree bari ba defee loolu dana la dimbali ci tàngoor wi ba li nga xam ne jafe-jafe yi fi am yi ci ëpp yooyu di ko waral bopp bi metti wala tension wala miir wala euh, jékki-jékki mel na ku xam wala dara yooyu yëpp yàlla sunu borom dana la ci dimbale infirmière bi nag tax daayira bi taxawal ko fii mooy irsan mooy képp koo xam ne yaa ngi ci biir jumaa ji yàlla suñu borom dogal dara arrivé la fi ni li baaxoo ànd ak doomu aadama bu ko defee dañ la mën a jël première defal la première secours yi bu yàggee bu bu naree bu fekkente ne yàlla dogal na nga féex nga ñëw eggali sa yitte bu fekkee yàlla dogal na li ñu la xool mu la jàllale am na ambulance bu fiy taxaw boo xam ne moo lay jàllale ci hôpital bi kon ñi nekk ci jumaa ji am fii jafe-jafe bi moo tax a jóg infirmière bi waaye bu dee ñeneen yi ci des ci hôpital yi ci des ak sant yi moo tax moo tax waxuñu ku génn ci bitti ne jumaa ji am na fajukaay rek naa dem ci jumaa ji faju ji ñi am jafe-jafe ci nekk ci biir jumaa moo tax a barab bi kaw loolu nag daayira Moukhaddamatoul Khidma di soññi ñëpp ci ñu bàyyee xel jumaa ji bàyyi xel gi nag dana waral jafe yi nga xam ne mooy waral nit ki ñëw ci hôpital bi man a wàññi ko surtout suñu mbokk soxna yi nga xam ne bari na ñu fi faj waaye li ci ëpp ay soxna lay doon mu leer na la coono bu bari moo leen yóbbe loolu kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci kaw loolu nag daayira Moukhaddamatoul ma ni ma ko baaxoo def ci màggalu tubaa gis nga barab bii mi ngi nii am na beneen bu nekk nii boo xam ne ci ay jigéen la boo génnee ci bis am na benn baas bu fa nekk bu mag boo xamante ne bu màggal jotee wala sëñ bi woote bis bu mag ci jumaa ji boo amee mag dañuy dañuy dañuy dajal dañuy dañ koy def renforcer ko infirmerie bi ngir jafe-jafe yi nga xam ne ñun ñu koy dund gis nañ ni muy amee ci biir jumaa ji beneen baas bi ñu jàkkaarloo tamit nga gis ñu def ko fi nga xam ne dañuy xale yi nga xam ne dañu réer seen moroom seen seen i seen i seen i bokk ci sens bu ñu leen foree ñu mën leen faa teg ba woo ñi nga ñoo yor wàllu xale yi di nekk Sëriñ Fallu waa ñu jébbal leen waaye nag kum réer sens rek bu ñu jëlee mën leen a teg foofu mën leen di leen teete di leen xam banee ba tamit ñi ànd ak malade yi tamit di baaxoo toog foofu ngir su malade yi nekk benn nit bañ fa am nekk ci kaw loolu nag daayira bi jotuwaay war a jël yëpp jël na ko ci wàllu barab bi ci wàllu kii bi la ca des ci wàllu doctor yi médecins yi nag loolu tamit waxtaan nañ ceeg mm, waa district bi ci njiital nday màggat ba li ci war yëpp ci taxawaay def nañu réunion tënk nañ ko bu ñett màgg di sa ñetti fan la barab bi tam tàmbale liggéey ba màggal bi am ñaari fan kon mel na ko loolu ñoom ñooy njëkk ay gan ñooy mujjee gan jumaa ji looloo waral ñu di ko def ñu di ko def noonu barab bi nag boo xamante ne Euh, ñi fi faj dañ leen di laaj dara ñi fi faj dañ leen di laaj noonu ngir doon liggéey boo xam ne dafa duggaat ci xidma gi nga xam ne daayira baa ngi koy liggéeyal baatu xidma bi moo ñëwaat liggéeyal sëriñ bi ci taalibe yi ak ñi ñëw ci moom moo tax garab bu ci nekk rek ñun dañuy defee ay pexe tàmbale ko ci benn benn ci noonu jaayante tàmbale ko ci daayira bi yëkkati dara jënd ko bàyyi tàmbalee ko ci tamit bépp mbokku taalibe bépp jullit boo xam ne am nga yëg-yëgu jënd ay garab yi nga xam ne moo jëm ci ay urgence yooyu andi ko ci barab bi d'ailleurs mu xadamatu xidma mi nga lay tàllal loxo ca loola ndax fii ku ne xam na ne damaa jëlale màggal gi waaye ajjuma jot tàmbal nañ di ko ànd ak district bi hmm, bu midi demi jotee ba ba trois heures jot nga xam ne jamono yooyu jumaa ji day bari nit dana am benn centre de santé bu fi ñëw kon tey jii rek nga xam tey jii waa Daaru Tansil ñoo ñëw boo léegi karit mën na ñëwaat sant sant yi léegi tey daal ton si lay ñëw bu teyee jéemul ñëw mu daru xudóos bu teyee kër ñang ñëw bu tey went euh, wentwit ñëw bu teyee ndindi ñëw bu tey daru marnaan ñëw bu ko defee mu juróom benn centre de sant yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba yooyu nag buñ dikkee tamit képp koo xam ne xool nañ la fi mu am garab goo xam ne am na fi dañ la koy jox amul lu ñu te laaj bu fi amul nag ñu soog laa jox nga dem xool noo fexe ba am garab googu waaye li fi nekk moom ci bépp barab bi moom dañ koy jàpp liggéeyal dugal ci liggéey bi ñu liggéeyal sëriñ bi ci jumaam kon loolu tax daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi leen di bàyyiloo xel ku fi ñëw ku nga xam ne ku am jafe-jafe ci jumaa ji moo ko tax a jóg waaye nag am laneen ci li wër jumaa ji am na pas yu ñuy taxawal ci jumaa ja mën yem foofu xat-xatloo bi fii gën a mën a wàññi kon ci kaw loola tamit ñu ngi tàllal loxo ñëpp képp koo xam nga am nga bunt boo ci man a jariñoo ñu ngi lay tàllal loxo ndax ñun kat li ci suñu wareef mooy lépp luy moyen bi yombal fañ mi ñu fexe ba mu am fi waaye lu fañ mi nag ñu bàyyee ko ñi nga xam ne seen xam-xam ci la jëm muy ñi nga xam ne mooy médecin yi te ñooñu doon ñoo xam ne su ma nuyoo day màggat rek dana dana ko jottali ci mboolem médecin bu ciy faj ak foo mën di doon. di teg lu nuyoo boobu tamit ci docteur Modou Fatou Diouf mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi ndax mooy yor centre de santé bi gën a jumaa ji yooyu ci moom fi ci liggéey liggéey bu rafet. ñu ngi sant ñëpp nag képp koo xamante ne yàlla dogal na at yi yëpp nga jàppale ngay jàppalante ñun liggéey bi ñu ngi leen bàyyi leen xel euh, dañoo bañ a lim di juum wala ñu bàyyi kenn waaye kenn ku ci nekk rek. borom baraag bi taxoon nga doon jëf xam na sa jëf ñu ngi sañ sa soññi nag képp ku ñëw ci jumaa ji moo xam kuy siyaare moo xam ku fi amum liggéey bu man di doon wala médecin am na loo xam ne soxla nañ ko fu ne waaye ci jumaa ji lañ a soxlaa muy euh, baat bii baat baat yi baat bii nga xam ne mbind ni benn la masque yi rek la ñu muy qualifié ak kàllafe bëgg nañ ko fi ñëw ku ne ñu seet ka gën a ñu gën a kàllafe ci métier ma ñu doon ñooñu leen ci jumaa ji ndax barab bi du barab barabu kàll nit ku kàllafe la koo xam day jëf-jëf ju kàllafe bane benti bëgg nañ ku qualifié mooy ñi gën a qualifié ci liggéey bi gën a mën liggéey bi bëgg ko ndax sëriñ bi kat li gën a jëm ci moom lu ko gën a jeexee la gën a baax nga war a a rafet nga war a am ngi tàllal loxo ñepp di bàyyi loo xel ñepp leen xamal ne lépp lu ngeen bëgg a xam lu jóge ci màggalu tubaa gi xew-xew bi da ngeen ànd ak MKTV bi site bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaay tubaa lépp lu ngeen bëgg da ko xam giiru màggal gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu